look at this bimoy, la gamme VIP marron savon et crème Boko sango, sangoo lépp luy picc ak bépp bodon sayaram. d'auto gour gissi ko ci sa yaram ci ak koy utiliser hmm, j'adore tes rondeurs Khali N'y a pas nyunan ñu forme d'affarafet. rafet et eh oui ma la solution est enfin arrivée Limoy, la gamme VIP djongama. ça y est c'est à votre disposition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

bal leen ñu xàq seen caali ndeysaan ku baax a ngi nii gërëm naa ko ndax ak dalam akuk yaram man de rëcc wuma lu ma ko doon jëlee tay ba njaay dal na bëgg na ma sëyal na ma yal na yàlla dooli sa sutura jibi baal ma xàq li may doon doon doon sa ndijaay naa la xàq ndax léeg-léeg ma wax la loo xam ne arrangé wu sax waaye dangay def rek te loolu ab yar rek moo ko moo ko baal ma xàq yàlla na yàlla boole baal ñu fekk ko ay déwén yu bari yàlla bu mu nekk sunu mujjeelum koor luñ ci jaamu yàlla yàl na ko yàlla nangu guddik tey gii nag ak weer wii ñu ne moo gën junniy weer guddik tay gi mo gën junni guddi di guddik laylatul xadri ba xonan ci sax di wax bab bi allahumma innaka afuwun karimun tuhibul afwa fa'fu anni da ci def ay lim yu bare bare bare na lim bo ci def nak baxna kon guddi la go xamni ni guddik jaamu yàlla la ndax bo demé ci sarwa يلا مينان إنا أنزلناه في ليلة تل خدري آه فوفلا سيو سيو بنكنا نبري بني تري ساري دنان في ليلة طول ديديت دو ليلة تل دي ليلة الخدر غني ورني وما أدراك ما ليلة تل خدري ليلة تل خدري خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر kon gudi gogu ëpp na nelaw ba fajar kat ndax gis ngeen li ci yalla wax ci gudi gi moy gudi go xamni mo gën juni juddi mo gën junni gudi gudi gi gën junni wër kon baxo nañ ci di ci jaamu yalla ba kérok fajar gi xar da ngeen yor seen kurus di ci def ay nafila di ñaan suñu borom ndax guddigi malaaka yi dañuy wàcc waaw ah, waaw ah ah waw kay ci weer wi la alquran wacc te guddigi malaaka yi dañuy wacc di yobbu des yoy ha ah, ah waw kay kon wi lu am solo la bu yeseen weer wi laa ni ak guddi gi lu am solo bàyyi leen ko xel loo ci def na neex yàlla ndax malaaka yi dañuy wàcc yóbbu dossier yi yàlla na ko téye ne ngeen di déwén ñu def faatiya mbébét ci sunu soxla yëpp ndax <laughs> ci heure bi la ñu commencé jëm guddi tey moom <laughs> amul tëdd bu lal am diet jibi waaw kay ñu def faatiha def lixlaas falaxi ak naas ak salaatu bu waay man rek waaw yàlla yàlla ubbinu gi yàlla def fi jàmm indiwaat fi mami Cobra bu na mën naa Cobra ah jibi leen loolu yàlla dellu siwaat ci ci kër gi ci bisu xadri bi bala noo korite yàlla na dikkaat leen loolu dégg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 aloir portable amna Alloir 1 ak aloir 2 que marché central Thiès avenue Amadou Niagne Sow ñu ngi fay téléphone portable toute marque en gros et en détail avec des xeetu accessoire téléphone 78 592 63 63 ak le 77 533 02 02 am aussi Alloir marché Moussanté en face maquette bi ñoo ngi jaay plus luy électroménager téléphone 77 070 45 00 nous am nañu portable mu ngi nekk marché mbëkkante bu en face terrain basket bi téléphone 77 656 44 87 alwar portable saa su ne day gën a jege askan wi. kokan la ñu ne Serigne djabi kokan la ñu ne borom sijaada bi grand marabout de la Casamance doté d'une dimension spirituelle très élevée même maa la ko wax dafay di un voyant hors pair Safara ay jafé jafé moma ci doy ay buntu yu tëju mo ci gaaw dafay faj ku rab jàpp mbaa sonal gorgu faiblesse sexuelle ou impuissance yeen ñi am jafé jafé ci sen biiri sey sëy ngeen nga bëgg retrouver sa ex mo xam muy mba ci geen yeen ñi jongante mbaa ngay passer concours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 look at this bimoy, la gamme VIP marron savon et crème bokoy sango sangoo lépp luy picc bodon ak dotok tache boo ko ci sa yaram ci et ak jigéen Mmm, utiliser mmh, j'adore tes rondeurs xale yi n'y ñépp bëgg ñu nous forme d'affaire et eh oui ma la solution est enfin arrivée Limoy, la gamme VIP jongama ça y est c'est à votre disposition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 moo moi dole, ëpp doole te moo des alors qu'attendez-vous ñi ngi nekk Dakar mën nañ la livrer partout au Sénégal woo ñu gaaw ligne 77 127 68 80 tey soo cosmétiques, cosmétique lu waay dëgër dëgër jooy yaay bandi de rabbil alamin